jaloog boobu boo ma ci laajee dinaa si kontaan trop pour wax ci parce que foog naa ne kuy woote jaloog bu baax rek Sénégal ñëpp si kontaan ñëpp aussi dañ koy rafetlu mais dafa nekk dialogue boo xam ne foog naa ne après du jariñ askan wi lu bari parce que dialogue la boo xam ne bala ñu ko wootee ki koy woote xam na noo seulement li nekk ci biir xam na au fonds lan lay woote euh, foog naa jarul woon. muy déplacer kilifa yi ak mag ñi parce que foog naa ne ñoom la ñu ci seen dialogue bi xam nañ ko ba nekk nañ ci ba looloo waral suñu njiit nag demul ci muy président Idrissa Seck. mais kon ñaan ñu koy yow naka naka moo expliqué ñaan yooyu. waa ñaan bi dañoo xamul parce que foog naa ne président Idrissa ku koy invité dañ ko invité à temps ci defar Sénégal rek da ciy nekk saa su nekk ndax président Idrissa Seck ku ko xam-xam ko ci defar Sénégal. xam ko ci bëgg Sénégal xam ko ci bëgg Sénégal avancé euh, foog naa ne tey jii sooy invité ku mel ni président Idrissa Seck di invité lu toll ne parti réew mi ca moom muy njiit li nga ni xamoo fan la siège partem nekk non seulement invitation bi dafa tardé deuxièmement bi ñu topp defuñu dara ci lettre bi lu dul cher patriote foog naa ne su ma dajeeg yow sax mën naa la koo jox soo dajeeg man mën nga ma ko jox est-ce noonu la ñu war a invité ku toll ni président Idrissa Seck non seulement loolu lépp tey bu fekkoon ne ba tey dialogue boo xam ne la dafay laal fi coono sénégalais yi nekk dina fa teg tànkam mais dialogue bi rafetlu na ko bu baax mais anam biñ ko defee loolu la ñaawlu ca foog naa ne kuy defar rek ci président Idrissa Seck ci moom ngay jàngee naka la ñuy defee dialogue ci moom ngay jàngee nan la ñuy defaree pour Sénégal avancé egg ci lu baax ñàkk dem ci dialogue bi nag man dama ko rafetlu parce que dialogue bi foog naa la ma la wax rek ci commencement ba liñ fa tënk ñoom ñoo ko xam la mu fa tënk mënoon na koo dox rek ci ni ko doxee nii rek ci suuf rek sans que muy déranger kilifa yi ak ñëpp ci biir dialogue bi. Pape euh, ministre Mbaye Ndiaye moom <laughs> du ma bëgg a sori ci waxam ndax foog naa am dëkk bu mu dem jooy fa mbaa mu rajaxe ko ndax bi mu fi ñëwee ci wax boobu ne Idrissa Seck. su faale woon waa cees ñun Thiès waaye bu ñu amoon ñett yu mel ni président Idrissa Seck Sénégal dinañu kontaan trop trop parce que ku xam président sa Seck xam ne lu mu am cees la ko indi lu mu ñàkk Thiès a ko waxaat adduna am yëpp Thiès baax la adduna am yëpp Sénégal baax la ministre mbay Ndiaye bu ñëwee ci mitin foog naa ñoom seen biir APR sax xeex nañu balaa meeting bay jeex parce que nee na Augustin yaa ngi soo a am femme leader. ñoom ñépp rajaxoo di xeex ñoom fu ñu daje xeex fu ñu daje rajaxoo fu ñu daje attaqué président Idriss Seck nag guddi yi talu leen li tax talu leen mooy que dafa nekkul ci phase di wax ay talul dialogue beeg talul ceesuwaay talul président Idriss Seck ceesuwaay yi la tal ci xolam li jënti leen mais Sénégal la tal li tax mu tal Sénégal mooy que Sénégal a ngi nax saay nax saay boobu président Idrissa Seck dafa jaaxle dafa daw di wuti ndimbal pour Sénégal mën a jóg parce que tey lu toll ne sante su demee dina ran nax saay Sénégal fu mu jëm lu toll ne éducation su naree nax saay fan la Sénégal jëm suñu kan lañu am am pneu secours tey pour mu dimbali ñu mooy le président Idrissa Seck pour mu daw xool nan lay lijjën nan lay dimbalee Sénégalais yi ci suuxee boobu Sénégal nara a suuxe dañu yaakaar nag mën nañu jënd Cees waay ba tax ñuy def seeni mitin ñëw ba digg Cees di wax ne Idrissa Seck faalewul waa Cees Idrissa Seck faalewul sénégalais yi ñoom dañoo réer ba xamatuñu fan la ñuy taxaw parce que APR foog naa ne li ma wax ne dañoo tëgg sabaru jinne ñoom ñoo tëgg sabaru jinne ñoom waa APR parce que parti la boo xam ne ku tëb fecc amul njiit amul ko am charisme amul ko mën a wax fii ngay teg sa tànk mu su ma gis APR mitin ba pare xeexuñu APR daje ci place ba pare ci xeexuñu ca Sénégal yi talatuñu loolu kon ñoom bu ñu ñëwee ba Thiès di wax dañuy attaque Idrissa ñu ngi nax seen bopp mais dama leen di waxaat ni leen bu ñu sonn ci Thiès bu ñu sonal seen bopp président Macky Sall ñi mu yebal Thiès yaakaar ne ñoom ñoo mën a détruire Idrissa Seck dañuy nax seen bopp dama koy digal ni ko man alal jooju nga xamante ni mun ngi koy jël tey di ko investir Thiès mais investir ko ci ci ci ci ci kii yi pour ñu pare ci chantier yi chantier yi nekk Thiès na ko président Macky Sall ñëw eggale bu fekkee bëgg nañu cees ñoom ñi xam ne dañuy laaj Thiès ne dañoo bëgg cees Thiès pourquoi mënuñu reyante eggale chantier yi nekk cees kon ñoom bëgguñu Thiès dañoo bëgg a gañe Thiès te gañe Thiès mooy dañoo bëgg a gañe Idrissa Seck mais bëgguñu cees loolu du am ci àdduna incha allah APR du gañe cees ci àdduna incha allah may wax président Macky Sall ni ko xaalis boobu muy dugal Thiès pour politiquer ko alalu askan wi la. alalu sénégalais yi la na ko def ci investissement yu am solo yi am solo yi mooy que tey njàng maa ngi yàqu santé mu ngi yàqu chantier cees yaa ngi fi na jël alal jooju def ko ci li nga xamante ni tey bu éducation yàqoo fu ñu jëm bu santé yàqoo fu ñu jëm mais na ko ci def moo gën mu koy def ne dafay ñëw de pour jënd doom doomu Thiès kenn mënu leen jënd parce que kuy seet ngor kuy seet ku diiñ kuy seet ku am fulla boo ñëwee Thiès fekk ko fi kenn mënu leen di jënd parce que président Idrissa toogul ba am alal soo ko xam cees toogul ba nekk ci nguur soo ko xam cees kooku dafa dëkk Thiès yaru Thiès màgg Thiès xam lan mooy soxla askan bi lan mooy soxla Thiès waay mu ciy taxaw du ci daw saa su ne ñun xamuñu ko lu président Idrissa Seck biir Thiès te incha allah suba gu ñu yeewoo lu ñu ñàkkoon dinañ ko wutiwaat pour mën a jàppale président Idriss Seck biir Thiès kon APR yi nekk Thiès ak di fi ñëw di fi wax ñoom Augustin woo Mbay euh, Mbay Mbay Ndiaye ñoom ñëpp nañu dem lijjanti seen ay base mais fii ñu nekk leader bu Macky Sall foog ne président Macky Sall leader bu mu yaakaar ne am na ko Thiès pour mën a kaw ci Idriss Seck day nax boppam xaalis bu fi dugg nag Thiès waaye ñoo ko moom parce que alalu askan bi la dinañ ko lekk mu rees ak jàmm le jour u vote ñu def nawoon fawoon parce que loolu lañ leen tàmmal mooy chaque jour Idriss Seck gañawaat leen biir Thiès ca ci loolu la ñuy liggéey ñun la jeunesse. merci eh, xam nga foog naa ne laaj nga ma lu ma neex mbay mooy que président sa Seck moo njëkk a défendre Karim Wade président Idrissa Seck dem na fu nekk pour defendre dossier Karim Wade pour ñu génne ko ci anam bu leer teg ko ci ay droit wam loolu président Idriss Seck ku déglu xam ne moo njëkk défendre Karim Wade président Idriss Seck lu mu défendre Karim Wade tey bu fekkee ne ci anam boobu la ko président Macky Sall bàyyee dina politique dina am ay droit dina am lépp mais bu ko gracier du am dara mais président Idriss Seck lu mu défendre Karim Wade pour ñu génne ko mais PDS sax que défendre nañ ko ko. est-ce que fi président Idrissa sekk gàddu yóbbu dossier Karim Wade est-ce que PDS sax gàddu nañ ko fa président Idrissa Seck fu nekk défendre na ko moo njëkk taxaw ni ko bàyyil kii ba pare nag yemul Sénégal partout dans le monde taxaw na fa défendre cause Karim Wade pour ñu génne ko ci anam bu leer pour mu mën a politique kon Karim Idrissa Seck du moom moo ragal Karim Wade parce que su ko ragaloon du wax ne génne leen kii du ko ragaloon du dem di ko. demandeel fu nekk di yóbbu ay dossiers yi fu nekk taxaw di ko kaasal ay droit wam pour mu génn mën a politique comme ñëpp am ay droit wam comme ñëpp comme président Idrissa Seck bu ñuy wax su ma déggee benn affaire di wax ne dafa dafa tii dafa ragal Karim Wade moo tax bi mu déggee dañ koy génne muy wax ay yu kenn ay naan dafa du génn nag dañuy dil ku su ragaloon Karim Wade kon du ko défendre partout su ragaloon Karim Wade du yóbbu dossier bi fu nekk pour ñu mën a génne Karim Wade ci anam yu leer génne ko ci anam yu rafet génn ko ci anam yoo xam ne day politique PDS nag mën nañu fàtte loolu mën nañu fàtte loolu parce que it politique la ñu nekk mais li may wax ne politique bu Sénégal jarul ñaaw jarul wax ju ñaaw jarul ñaaw ñaawoo parce que wax ju ñaaw baaxul su ma déggee benn xale bu nekk pe euh, comment dirais-je seen parti bi ñoom non APR di wax ne président Idriss Seck dafa tiit parce que ngelaw Karim du ko romb ak yooyu ndax dafa foogoon ne mooy nekk président cinquième président yàlla mooy xam kan mooy nekk président mais li ma koy wax moom mooy ka na dem demander laajte président moom Macky Sall comme nee na président Macky Sall musu koo recevoir sax moom déjà mosul recevoir jigéen ñi xamul ñoom ci lu ñu nekk kon na laajte kooku kan mooy président Idrissa Seck ñoom président Idrissa Seck du seen moroom pour ñu xam ci lu muy nekk mais cause bi mu dox pour Karim ak a neexoon tey président Macky Sall génne Karim wàdd ci dox bi président Idrissa Seck dox kon dina politique dina am ay droit wam dina am léppam kon PDS amuñu lu ñuy wax pour ne Idrissa lii Idrissa laa Idrissa dafa bëgg ñu ñun génne Karim Wade moo ñu gënal kon président Idrissa Seck dox na ci à temps euh, dama bëgg a wax benn affaire rek mbay ci côté boobu ni la président Idriss Seck euh, c'est le professeur de Macky Sall président Idriss Seck mooy professeur u Macky Sall li tax ma wax loolu mooy que toujours idée yi muy teg di ko acte yi muy posé su ci Macky Sall jaaree day dem te dara du ko téye ku soxal du def loolu ku bëggul Sénégal avancé du def loolu mais président Idrissa sec bi nga xamee ne rey nañu étudiant boobu di Bassirou étudiants yi dañoo seeti président Idrissa Seck seeti ko waxtaan ak moom mu ne leen président nekku fi mais dinaa wax ak waa gouvernement mu woo premier ministre am pour ñu waxtaan xool nu ñuy trouver solution pour jàmm am Sénégal bu apaisé bu posé loolu la président Idrissa Seck di dox bi mu ko woowee nangul na ko audience bi mu dem ba dernière minute ba dernier moment mu annulé ko ñu bàyyi ko imaginer loolu ca rien muy dox pour jàmm parce que bëgguñu déglu soo gisee muut maa mott ci président Idriss Seck biir Benno Bokk Yaakaar lu ko fi indi nañu libéré Karim dox ci ay lu askan wi soxla lu sénégale yi soxla ci président Idriss Seck loolu la doon dox ñu ne ko mbuut wala mot da ngay toog ci lu ñu bëgg lu ñu wax nga ni waaw soo ko mënul da ngay dem est que kon ñooñu ñu ngi ci ñoom ñu ngi ci logique bu normal ñoom foog naa ne ki nekkoon ci logique bu normal mooy président Idriss Seck mi bëgg tey Sénégal egg foo xamante ni macha allah fu. fu mucc ayib la moo tax bi mu toogee ci biir Benno Bokk Yaakaar di défendre sénégalais yi di défendre cause yu bëri dañ ko ni mut wala mot yàggul dara bi mu recevoir li nga xam ne mooy jàngalekat yi jàngalekat yi dañoo tëwoon a am audience audience boobu amuñu ko ci président Macky Sall mais keroog bi leen président Idrissa Seck recevoir teguñu ci 15 jours président Macky Sall recevoir leen kon mën naa ne. président Idrissa Seck mooy professeur président Macky Sall non seulement président Idrissa Seck génn na ci biir benn Bokk Yaakaar mais pour mu bëgg Sénégal avancer yenn saa yi day wax day proposé ay actes yu baax sànni ko ci média bi pour bëgg Macky Sall taxaw ci pour Sénégal mën a avancer kon kooku dafa bëgg Sénégal dem dafa bëgg Sénégal avancé ci loolu lay dox su ko président Macky Sall doon déglu du am benn problème ca dina am ci anam bu baax président Idrissa Seck moo ko wax ne ko. bis boo doxalee mu normal may doon sa directeur campagne yéen ñëpp déggoon ngeen ko kuy journaliste Sénégal dégg nga loolu kon est-ce que kooku na kooku bëgg na Sénégal du am lu baax kooku dafa bëgg Sénégal am lu baax muy président Idriss dafa bëgg Sénégal avancé dafa bëgg étape bii Sénégal tollu ñu jugee ci loolu mooy rêvam président Idriss Seck Sénégal rek a ko ñoom leneen ñoru ko Afrique moo ko ñor parce que temps yi passé dégg bi muy wax ne dafa ñaawlu. ñu dem ci ay compétition Sénégal amuñu fa dara loolu ñaawlu na ko trop trop trop kon président Idriss Seck ñun dañ koy ñaanal yàlla guddal fanam bu baax parce que fi mu bëgg yóbbu Sénégal mu yóbbu ko fa parce que ñun daal jaaxle nañu ci Sénégal léegi fan la jëm. fan yi am na lu xew ma bëggoon sa gis-gis mooy taal si le mouvement bi mu lancé am na sax kilifa bu mag bu jógee ci yéen nekk foofa ci responsabilité bi yow mbir moom nag nga ko jàngale. mbir moomu li ma ko jàngatee non seulement maa ngi nuyu la maire Talla Sylla bu baax a baax a baax euh, kilifa gu mag gi jóge foofu moom dem ci amul solo garaawul mais li nga xamante ni le maire Talla def na ko muy mouvement bi mu taxawal euh, jàpp ma ne mouvement buy xeex ak président Idrissa Seck la ndax président Idrissa Seck moo fal Talla ndax moo jox Talla mairie ville ndaxte Thiès waaye ànd defar Thiès la ñu voté président Idrissa Seck nekk bopp ba nekk njiit yàlla def nag euh, président Idrissa Seck li may wax ci baaxam ci mën a séddaleem ci bëgg Sénégal avancé bëgg Sénégal baax xoolul ku nekk ci sama parti ak ku nekkul sama parti mu wërale Sénégal gépp nag cees gépp mu wërale fa le maire Talla la daal di jël nag mairie ville jox ko le maire Talla Sylla foog naa ne li ko ñor mooy Thiès baax li ko ñor mooy Thiès avancé moo tax amu ci parparloo mu jël la maire Talla Sylla dénk ko li nga xam ne mooy maire ville te pourtant bokkul parteem allié la mu ñëw dugal ko jox ko toll ak maire ville ak ni maire ville toll mu jox ko ko euh, kon kooku euh, du moom euh, ay nitam ñoo koy xeex déedéet du am parce que nag ay nitam a ko fal parce que boo demee ca conseil ba ah réew mi fa majorité kon ñu ànd ak suñu président Idriss sec daal di fal nag ki nga xam ne mooy le maire Talla Sylla jox koo li nga xam ne mooy maire ville yooyu am nag. dama jàpp ne le maire Talla kenn mënu koo jënd Macky Sall mënul jënd Talla la parce que le maire Talla mo ngoram amul prix ca prix mooy ngoram ca yaakaaruma mukk ne président Macky Sall bu xalaatee ne dafa bëgg a utiliser le maire Talla pour dal ci kaw Idrissa Seck day nax boppam parce a Sylla amul prix parce que prix mooy ngorom ci àdduna du yàgg man li ma foog yaakaar ko ah mu waxtaan kook man moom le maire Talla ëlbatiku ëllëg mukk di jaay ngorom pour wan Idrissa Seck ginnaaw parce que su ñuy wax ne Talla waaw waa réew mi nangam waa réew mi ñu xeex nit ñun ku ñëw ñu xajal la duñu xeex nit man le maire Talla sama xarit la dañuy waxtaan ci lu bare bari mais nee la waa APR yi wax ne Talla dañ koy jàppale ndax su ma déggee seen biir wax am na ko wax ne APR ñoom wax nañu Macky Sall ne ko na jàppale le maire Talla parce dañ koy xeex dañuy wut ay argument yoo ñu ñëwee ci le maire Talla mais Talla Sylla la amul Macky Sall amul prime parce que prime mooy ngorom ca ngorom googu xalaatuma man du ma tëdd guddi xalaat ne le maire Talla Sylla la dina jaay ngorom pour wan Idriss Seck ginnaaw parce que Idriss Seck da ko nag ànd ak moom ci ngor ànd ak moom ci fulla ànd ak moom ci fayda jox ko lu tolloog mairie ville bàyyi ay njoñam partem bàyyi waa partem moom réew mi jël maire Talla jox ko ne ko liggéeyal parce que man lu avancé loo Thiès rek laa bëgg lu jàllale Thiès rek laa bëgg lu avancé loo Sénégal laa bëgg kon pour bëgg lu leer moo tax mu jox ko mairie ville mais ku bëgg lu lëndëm doo jël sa allié jox ko non seulement mairie boo dugg ci cees am na adjoint boo xamante ni APR la bokk pourtant ñun ñoo majorité mais Idrissa Seck ci démocratie ci démocratie bi nga xam ne moom la am loolu la bëgg a yóbbu Sénégal mais boo dugg teg na fa benn adjoint boo xamante ni APR la bokk te pourtant dafa imposer réew mi ne voté leen ko ñu voté ko jàppale ko kon kooku séddaleem ak euh, démocratie bi ci moom dañuy ñaan yàlla rek. yàlla jox ko Sénégal pour sénégalais yi xam kan mooy président Idrissa Seck le maire Talla nit ku baax la amuñu Macky Sall amul prime parce que ngorom mooy prime ca du dem incha euh, sama gis-gis mooy li may wax ci seen télé li may wax ci seen télé euh, gouvernement boo xam ne. ne li may wax rek ne Sénégal daal yàlla nañ yàlla jàppale sauver ñu boppam parce que nguur gi fi nekk xamuñu nguuru lan la xaw ma nguuru pëccëxoo la xaw ma lan la parce que tey jii lu toll ne éducation ni mu mel hmm, ëllëg suñu ay rak suñu ay doom war fa génnee pour jariñ Sénégal ñi nga xam ne seen ak ak seen yelleef la ñuy muy jàngalekat yi bul yëkkati yëpp di leen ko dóor woo leen du lay jàlloog nee na dialogue bi kay foofu la war a commencé dialogue baa ngi war a commencé premièrement ci li nga xamante ni nii loolu mooy dialogue bi li mu war a commencé mooy côté santé bi ak côté éducation bi ñu woote leen ñu toog waxtaan xool nan la ñuy defaree nan fan la ñu bëgg a yóbbu Sénégal. mooy dialogue bu njëkk foog naa ñu wootee leen toog waxtaan moo gën ñuy yëkkati yet ak di bras de ak ñoom parce que ñoom aussi tamit mérito wuñu loolu parce que ñoom ñooy def ci xale yi xam-xam li président Idrissa Seck di wax chaque jour jàngalekat yi ñoom ñooy def ci xale yi xam dañ leen a war di jàppale bu baax a baax a baax pour ñu xool fan la ñu mën a yóbbu suñu doom yi fan la ñu mën a yóbbu suñu rakk yi pour jàppale parce que éducation su naxsaayee ci réew réew ma naxsaay na kon loolu nañu arrêté bras de bi ñuy def ak ñoom ak yat bi ñu yëkkati mooy ko ñu woote dialogue toog waxtaan li nga xam ne mooy côté jàng mi euh, éducation bi ak côté santé bi man dama foofu laay gën a taxaw parce jigéen ñi aussi dañuy soxla santé tout le temps loolu dafa am solo bu baax a baax pour ñu wax ci mais pour ma dagg tuuti dugg ci li nga xam ne mooy fi ma nekk ci mairie bi nag aussi euh, dañ fi nekk macha allah anam bu rafet parce que dama dégg benn conseillère. buy nekk ci mairie bi di nekk APR wax ne mairie bi benn nit dafa nekk di buum di buum mi muy la maire et du lu am parce que ñun président Idriss Seck dafa éduquer njabootam ci ay def leen ay leadership le maire Alioune saw moo fi nekk te bokkum topp ci ma topp ci mais ñu ngi liggéey liggéey boo xam ne macha allah parce que lu ñu am nañ toog suñu bureau municipal foog naa kuy liggéey lu lëndëm doo am sa biir bureau municipal euh, adjoint adjoint boo xam ne APR lay bokk kon lu lëndëm mënu fa am ca suñu quatrième adjoint APR la bokk Benno Bokk Yaakaar la nekk mu ngi ci biir bureau municipal bi le maire Aliou Sow mu ngi liggéey ay adjoint te aussi mu ngi def poser acte yu am solo biir Thiès biir Thiès ouest parce que tey soo duggee ci liggéey bi xoolal tey ji pavage yi nga xam ne yëpp def nañ ko xoolal tey jardin public yi nga xamante ni yëpp le maire le maire bi ñu ngi ko ñu ngi ci liggéey boobu non seulement boo duggee ci côté santé yàggul dara la ñu recevoir école yi nga xam ne ñu ngi biir Thiès ouest yëpp pour jàppale leen ci ay subvention pour fayu ndox ak fayu courant ci biir commune bi ak poste de santé yi loolu lépp le maire Aliou Sow mu ngi ci ak équipe am bi mu àndal côté santé def ciy liggéey bu baax imagine tey APR xam nga lan la ñuy wax ni ñi bu duggee si koñ yi su ngeen ñu voteelul du ngeen am ci bourse sociale bi est-ce que bourse sociale bi APR kese moo ko moom pour Sénégal la parce que alalu askan bi yépp la mais ñun est-ce que ñu mel nañoo toog ci mairie bi di wax ni ku bokkul APR doo am social bi ñun xàmme wuñu ko bokk APR xàmme wuñu ko bokkul APR le maire Aliou Sow mu ngi def social bu am solo ci biir Thiès Ouest di liggéey liggéey bu am solo xam naa beneen yoon dinañ gën a yaatal bu baax a baax li nga xam ne mooy suñu bilan bi nga xam ne moom la maire bi di def mais ñun dinañ ko gën a yaatal beneen yoon ci lu am solo may wax rek maa ngi nuyu Thiès waa yëpp di nuyu le maire Aliou Sow di nuyu sama président Idriss Seck di ko déwénati di ko palu ak di wax nag ne sénégalais yi ñu xippi seen bët yi xam ne ñi ñëw di leen jënd ak di leen jox fukki dërëm pour kay voteel ma su vote ya jeexee doo ko gisati suñu doom la ñu am suñu papa lañu am suñu ndijaay la ñu am muy président Idriss Seck ak fi mu bëgg a yóbbu Sénégal maa ngi ñaan ñëpp jàppale ko ndax mu mën fa yóbbu Sénégal balaa Sénégal a nax saay merci beaucoup wasalaam